mu ak li mu daj ba yegsi fii mu yegsi ni tey ñu bëgg ñu jël réew mi di ko jox koo xamante ni texte yi wane nañ ni il est il est il est il est inéligible inéligible voilà mm-hmm. excusez-moi il est inéligible mm-hmm. loolu fan la ñu war a teg ni ko kooku par force doy bokk mm-hmm. amul fenn fu ñu ko teg ndaxte fii justice donc lañ fi dawal daw lu ñu fi kumba am nday ak kumba amul nday ñaari citoyen sénégalais ñoo am problème ñu yóbbu leen tribunal ñu def lu ñuy def bu tànk mu ngi ci tant qu'il est toujours condamné à deux ans de prison ferme taxi yi wane nañ que il est inéligible te dire que élection du am Sénégal sans Ousmane Sonko loolu dama yakane ay wax yu wad ci saret la hmm. waaw parce que deuk bu toll ni Sénégal rencontrer na kay yu gëna metti fi ni. Légui la média am rek réseaux sociaux yi diffusion gëna yomb mais gënon na fee metti, gënon na fee tar daju daju fi lu kenn dajut hmm. daju fi lu kenn dajut gis nga politique du saaga du xaste du du diffamer politique dafa di lu noble ñun kay politiciens actuels yi ñun ñoo fi nekk ñoo jël métier politique daf teg ko foo xamante ne waru fo wona nek gis nga buñu bayu la la malhonnêteté intellectuelle di mettre en mal la population avec le gouvernement sénégalais di len di gëmlo ay affaire yo xamante amul te ñom di di wax ci affaire transparence et bonne gestion te yow ñu la denk une cité bo xamante ne amul transparence amul bonne gestion yow dama japp ne yow kuy diglé sangu set la war donc da nga jàpp ne moom élection là mais pas sélection. d'où sélection parce que mm. su nekkoon une sélection mm. je pense que n'importe qui du déposer. Mm. mais dafa am lo xamante ne lu normal lu tegu mooy suñu dëkk bi dëkk bu toll ni Sénégal ak potentiel bu mu am ak diplomatie bu am au niveau international duñ ko jox jël di jox n'importe qui je suis désolé. voilà. Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM.